ci plan orsec bi nga xam ne nguur gi taxawal na ay service am yëpp ngir dimbali askan wi ci jamono mbënd gi ñu ne ci ndajeem ak taskatu xibaar yi jëwriñ aljuma bi jëwriñ bi yor wàllum assainissement xamle na ne liggéey bi mu ngi wéy ba tey ci gox yi nekk si mënd bi te matuwaay yëpp jël nañu ko ba mën a aar fi nga xamante ne ndox mi foofu lay jaar Serigne Mbaye Thiam di xamle ni itam fleuve Sénégal ak Gambie ñu ngi koy saytu bu baax te lépp lu fa mënti am ñoom jël nañ matuwaay ngir aar askan wi Abdoulaye wadd moo tataan ay kàddoom. donc le mi nekkul fu mu toll nii ñu rek dañuy toj ay quartier waaye li ñu war a def mooy xool ci biir karce yooyu fan mooy yoonu ndox ñu xool rek bu fekkee ni ni euh, dafa am moomeel euh, ñu xool naka la ñuy def ba lu nu mel ñu daal di ko annuler bu ko defee nag ndox mi mën a jaar ci yoonam na mu waree. Euh, bokk na ca ci liggéey bi euh, fuñ ko fa yéene def fu gën a am solo euh, moom mooy zone périurbaine boo xam ne soriwul dara dakaar ci at yu ñu ñëw ndax boo moyul wàllum mbënd mi dina fa am solo lool bu fekkee ni nag jëluñu matuwaay yu ni mel point bu gën a critique xëy na dina jóge foofu ca Kër Massar eh, ñëw ba eh, côté Rufisque te boobaa dina xaw a jafe lool eh, liggéey bi nag daanaka ki nga xamante ne moom mooy gouverneur bi moom mooy rek daal di coordonné lu nu ànd ci nag ak li nga xamante ne moom mooy service bu domaine service bu cadastre ak service bu ANAT maanaam ci wàllum aménagement du territoire waaye tamit waa DESCOS nañ ci dugal seen i yoxo ñoom nag ñoom ñaay daal di xool zone yi yi nga xamante ne dëgg-dëgg ay yoonu ndox la ngir ñu mën leen a libéré comme euh, Sénégal ci beneen euh, pàcc rek niñ ko waxee euh, géej gi wala sax bu fekkee ni dex gi war na tuuru boo moyul mën nañ ci am ay jafe-jafe moo tax nag nguur gi ak lépp lu nga xamante ne matuwaay la moo ngi koy jël ngir ñu daal di surveiller bu baax a baax dex gi bu fekkee ni nag ci lu ñuy wax fleuve Gambie fu mu toll nii daanaka mën naa ne benn jafe-jafe amu ca ndaxte mbir yi ba léegi mu ngi yemb waaye nag ci fleuve Sénégal buñ ko waxee rek ci lu jóge ci suñu côté mu mel ne nag du sax station yëpp la ñu mën a wax ni code yi yéeg na waaye nag am na benn mbir bi nga xamante ne moo xaw a feeñ ndax boo xoolee ci station bu Podor euh, daanaka jafe-jafe xaw na fa am lu tollook euh, ci ñeent fukk ak juróom-ñetti. centimètres la euh, ci côte d'alerte foofu la ñu rek daal di euh, toll. 52 centimètres donc on est à 48 centimètres de la côte d'alerte.